yaakaar naa ne combat bi daal Omar enjeu yi bëri na lool lool lool lool kon yaakaar naa ne laaj na un maximum de concentration rek nekk tamit ci combat bi daf si am solo lool lool lool Omar. ci boobee combat Boucar ñi ci àddu bëri na lool rawatina ay nitu moo Modou mbay bu 2STV bi yëkkati ci ay kàddu di xamal ni combat la boo xamante ne nii nag moom Boucar combat bu war a neex la combat bu war a gaaw la waaye Papa Sow moom na fexe rek.

balaa loxo bi di delluwaat tër yi tër yi day fekk ci ay tànku Siteu parce que day door daw soo waaye Siteu itamit na xam ni combat bi kombaal la boo xamante ne nii bu ko combat la bu ko mën a génneewaat combat la bu ko mën a yóbbu fu sore sore sore ci làmb gis naa fi kenn ki ci ay sëriñu xoyantaan ah xoyantaan xoyantaan mooy kan xoyantaan bu gàmbi waaw paa boobu ma gis sànq mu kaalaw waaw ab sëriñam ab sëriñam la waaw Tapha kaalawu na ba ñu xàmme ko. mi ngi noonu. bi Modou Lo di bëre Eumeu Sène ñëwoon na seen dernier combat bi. ñëwoon na ci làmb ji. waaw tey it ngeen gisaat ko. moo réeroon ci stade. mais kan kan la àndal. déggul olof Papa Sow la àndal. waaw ah, Papa Sow la àndal. Uh-huh. Ah, waaw. le 6 novembre incha allah rabi si kàttanu yàlla lu ma jàpp day jeex incha allah. boo jàppee le 6 novembre combat bi jeex. waaw ah, lu ma jàpp mu jeex incha allah. fan nga teg loolu. sama sañ-sañ rek sama yaakaar sama gëm-gëm. sama liggéey. billaay wallaay taala Papa Sow bu yow yow nga pare mango bu ñor la dañ koy teel a witt billaay xaay si biir loolu billaay wallaay jooy lañ koy jooy rek benn jooy rek benn jooy rek lañ laa wallaay amul ragal nee na mënoo xeex ak moom kan moom non loolu na ma xaar rek xalaatoo xeex ak moom ndax sañoo xeex ak moom Papa Sow na ma xaar mu def dara na taxaw waaw maay xeex maay bëre mais xeex bi amoo fi tam kay laa waaye doo bàyyi Lamine yow kuy xeex kuy xeex MMA yi kooku dafa faale ay xeex. Ah, waaw lañ ko wax. ko ok bëre daal bëre dóor la bëre dóor waaw ku dóor sa morom sa morom dóor la loolu dong la Papa Sow ne indi ay qualité ma indi samay qualité le combat bu nit ñi trois ans di ko xaar mënuñu war a yomb combat la boo xamante ne bii dina war a livrer. jox ñu seen àq ba mu mat sëkk amateur soo ngi noonu di dugg si. waaw dafa mel ni ñu ngi noonu sënk ko di ko indi. ñoom Ibou Laye ko tar. mu ànd ak xale yu parcelles yi. waaw. nga xam ni écrit bi mu nekk écrit bu bees la. waaw. bi mu fa nekkee ak léegi bëreegul benn combat. indi lagul leen benn résultat. tey nag waa parcelle ñoo ko sas. Ah. li xale yi naan. dañ maa yónni yàkkamti ma. moo ngi noonu. man jàpp naa ne moo dal tey Papa Sow. ngi noonu waaye xale ngi nii boo xam ni. ànd ak Tapha Senior. waaw. xool ko moom Papa. waaw. ndeysaan. ndeysaan baa ngi noonu di yuuxu. tey nag waa parcelle dañoo ñëw. waaw waaw parcelle parcelle dañu mobilisé wu. tey waa dañoo ñëw. parcelle dañu mobilisé wu. waaw. andi mbooloo moo xam ni mbooloo mu impressionnant la. mbooloo ñoom ñëpp jóg nañu taxaw di yuuxu Papa Sow. loolu dalay won ni encore une fois làmb ma nga ca place ba léegi waaye daal Lamine Lamine xale ngi ñëw boo xam ni waaw daanee ne nu nekk mbër si taa ngi noonu dugg si ah, si te naga ngi noonu ñu yor benn morceau benn muur ko ko di ànd ak moom di ñëw perkaal lañ ko muur benn perkaal bu weex moom ko muur ah, loolu nag yàgg nañ koo defal buur de ku daan tey doon buur diggante séeréer ak tukulóor ah? ma ne ku daan tey di buur diggante si diggante séeréer ak tukulóor. ah diggante séeréer ak tukulóor la de. waaw. ah en tout cas ñaari mbër yi ma gis nii ah dans quelques instants dinañu seetaan lu rëy rëy rëy kon nag si tàngi noonu ñu jox ko muur ko morceau boo xam ne mat na fukki meetar. waaw Mohamed xaaral kon tuuti. muy dox di ñëw. Mohamed xaaral tuuti. si ta dugg si mu ngi noonu. mu ngi noonu. ndeysaan. dafa cosaane nag per waaw Siteu dafa cosaane. moom Siteu mooy dugg si noonu yor bi jënu kooba ba. ah yàgg na mbëri yàgg naa indi loolu. Siteu a ngi noonu non Siteu dafa cosaane sama xel dem na ci caat booy bambara. ah. ma ne sama xel dem ci caat booy bambara. caatu booy bambara kenn du moom. ak cosaane. est xam nga ni caatu booy bambara ak Siteu. ay mag rakk lañ. ay mbokk lañ caatay magam. Ah? caatay magam. ah oh. waaye Ramdan bu daan dugg si. xoolal ma Ramdan bu daan dugg si rek. yore sorba sorba sànni ko. waaw. Garga Mbossé. waaw. ah. ndeysaan fogale foo nees. seen rakk jaa nii war a jàkkaarloog Papa Sow. Siteu Papa noo gisee. Siteu Papa Sow ah ñun Papa Sow la ñuy ñaanal yàlla mooy ko waaw ak bépp mbër bu dëkk parcelle bu siy bëri rek yàlla yàlla may la dem. Papa Sow Siteu ah loolu combat bu neex la loolu moom combat bu neex la te ñun moom wax dëgg yàlla xale yi jàmm gën leen. Papa Sow Siteu làmb ji neex la mais man Papa laa faral yàlla may ko ndam. waaw Papa ku wax ku wax Sow wax ko ci làmb Papa Sow moom moo moo njëkk a bëri maanaam boo gisee combat combat bu neex la combat bu. amateur yëpp di xaar waaw mu nekk combat boo xamante ni tey jii euh, kuñ jox favori rek def nañ erreur man su ma sama xalaat combat bu amul favori. combat bi moom combat bu war a neex la moom. damaa xam ne lamb neex la parce que ñoom ñaar kenn ku nekk da ngay mobiliser Papa Sow bu jógee waa Parcelles jóg Siteu aussi moom kenn du ko naatam la moo tax lamb day neex te lamb règlement de compte la quoi du bàyyi mu sedd Siteu tamit day ñëw bëgg def lam defaatoon mais du far. waaw ah, ñoom ñaar seen bëre moom su ko tee dina fa ñëw Siteu moom ni ku nit ku nit ku xam Siteu moom si am kii nga ko xamee quoi ambiance indi su ko tee mooy loolu soo nga xamee Siteu Siteu moom da mën naa bëre indi na mën naa indi mbooloo te day neexal làmb waaw moom njool ak ndaama la boobu daa war a neex kenn ki ndaama la kenn ki njool la waaw waa Sow daal leen laa koy digal waaw bu mu yàqamti làmb ji njool ak ndaama bu ñuy bëre avantage su ndaama bi mooy mu jege Siteu Siteu avantage am moom mooy mu xeex mais Siteu nag xeex bi dafa xaw a des quoi parce que xeexu góos day xeex moo tax pour mu kii Papa Sow te Papa dafa gaaw day dóor góos daw jël la loolu loolu laay sóoraale Siteu quoi mais xam naa ne bu fekkee bëree bëree rek Papa bu ñemee action yi day daan Siteu waaw maa la wax loolu. ndax Siteu xale la te doole ndaw la ñuy wax Papa Sow tamit daan naanul làmb la ndax ku yàgg si bëri la bëri na ak bu nekk waaw bëri na bu nekk waaw mais Siteu day mbër boo xamante ni tey dafa naqaree bëreel ndax mbër boo xamante ni dafa am rallonge la Siteu day day xeex day teq day xar day mbot. waaw Siteu rek mooy ñun ñun ci ay wàccaay ci ay loxo la nekk ci ay loxo la nekk man li ma gëm moom la Siteu gëm nee naa dama ko dama toog suma kër ma ne combat le 6 novembre mooy dàq ci at bi ak at yi ñëwoon ak yi passé ah, ci lépp ci lépp ci ambiance ndax ñun dañoo pare pour def promotion combat bu neex ñëw livré euh, bàq bu neex journée bu neex bëre bu neex. eh ñaan yàlla defal ñu ndam. dama koo jëlee yàggul dara mu ni combat bi xeex bu metti la ci bëgg ñoom ñaar ñëpp dóor bakkan toj deret génn nee bëgg na ñoom ñaan ñëpp dem ardo ndax loolu da koy wax ci kanamu Siteu. waaw xam euh, dem ardo ardo ñu dem ñëpp mooy dañoo xaaj Siteu xaaj contre kii bi ñu xaaj ma contre kii mais ñu naan ñëpp ànd ak ñoo faj ñuy dem ak ñoo di variété mais bii nag bëgg nañ bëri combat benn cinq minutes dix minutes combat bu étincelle combat bu neex ndax gars yi doyul ñu daal ba léegi boobu. man papa gis nga bi bi wallaay lu ma ci mës a am depuis commencement ba fii yàlla rek moo ma tiim aw ko si ma ci mës a am social ko def xam nga kañ laa koy lekk bu ma bëreeg yow ba pare jëflanteeg yow ba pare lu ma am dama xam ne lew ma dama bëgg ñu wane suñu njàmbaar. mu ne suñu ci combat bi waaw mu tax sànq wax xanaa nga bañ mais yow bu paree rek pare naa. waaw ah, man euh, ku affronté Lac de Guiers 2 affronté Balla Gaye xeex ak ñoom ñu reculer xeex ak Ama Baldé mu reculer xeex ak ñëpp ah bu nee la di nga xeex ak Siteu kañ kañ Siteu kañ na préparé lu mu takk ci gaaw lu mu dóor saa doyul te xam ne combat bi bunt yëpp ci xeex lay ubbee ko dóorante ba ne ba ne saay ba mar naan dem naa leen ñëwaat man loolu laa gis ci combat kooku nag tey rakam mooy bëre nii di papa waaye papa daane na mbër nu ne. jël bu nekk daane na ko fi mbër. papa dafa papa li war a nekk ci moom bu nekkee ci moom. ah. li war a nekk ci moom. waaw. bu nekkee ci moom musiba la. waaw moom wax naa leen ni leen bu amee état de forme. waaw Aziz bu waali ba la ko sekk. def li mu war a def. Aziz Thiam. ah daan ko mënul a yomb. moo tax mi ngi noonu di laggat. te xale bu mën bis la nag. dëgg la xale boo xamante ni. ba léegi nit ñi dañuy fàttaliku digganteem ak combat yu métti yi mu bare woon stade Demba Diop. ba léegi digganteem ak Modou Lo nit ñi dañ ciy bàyyi xel. ba léegi digganteem ak Tafa Boy Bambara nit ñi dañuy bàyyi xel. ba léegi digganteem ak Tonnerre. digganteem ak ki nga xam ne moom mooy euh, ñoom Boy sëy waaye digganteem ak Lac de Guiers ñooñu ñëpp ku ci fu mu jaar mbër mu fa jaar boo taxawee di bëre ñëpp dinañ la bàyyi xel. xale ngi nii boo xamante ni ba mu nekkee ci ay loxo ba léegi heure bu ñëwee rek indi loo xamante ni day jaaxal amateur yi. waaye nag dans quelques instants ah la xale bi nga xamante ni moo jóge fële war a yegg si nag. waaw. dañoo dem fële nga xam ne mooy John waaw John Waar. si te nijaay ci yëpp ko. waaw. ni ko yal min a feeña. loolu mooy lan. ni ko yal min bi feeñ na. waaw. fekk Papa ma nga ca àll ba di rëbb ay gaynde. ma nga ca kaw la. ma nga ca àll ba di rëbb ay gaynde. ay gaynde waaw. si te nag nijaay ji da koo chargé mission bu mission bu diis. waaw. nee ko. waaw. karawu gaynde yi demal nga indil ma ci. la ilaha jox na ko fital jox na ko fas. waaw mu sol gaynde te karaw gaynde gee ngeeg Papa Sow. Jili Seck a ngi noonu. ah kookoy Jili Seck. waaw man jàpp naa ni combat bi su gaawee Papa Sow la gën ci moom. mais bu yàggee parce que pexe amatul te pexe bu amatul jeunesse moo fay des. Ah, ak endurance kon gaawaay bi ci papa la gën mais yàggaay bi. ci Siteu la gën moom moo koy sëf waaw combat distance bi ci Siteu la gën combat jegeyoo bi ci papa la gën loolu yëpp mi ngi ci rapidité bi aussi dañ koy njëkkante ku gën a gaaw rek ci li ngay def rek yaa ëpp sens waaw yooyu yëpp mi ngi ci waaye boo leen xoolee ñoom ñaar kenn mënu ci wax ni kii entraîné wul waaw ñoom ñaar yëpp na solo ñoom ñaar ñëpp quatre ans yi quatre ans loolu tamit waaye xool ay yàq la ah. xool quatre ans bëriwul nga bëri benn combat. waaw loolu nag li mu arrivé Papa Sow war na trop. si te di xool rek ñu daal di sëgg bëri. loolu moo tax nag réforme bi moom. amul mbër mu ndaw amul mbër mu mag. waaye papa daal ni ma ko gisee. waaw ah, am na indi na entraînement bu baax. indi na bu baax indi na cawarte. ci état bii mu yor. Ah. moo gën bi mu yoroon combat bële. Ah, ndax combat bële bi mu ci jógee. waaw dix jours dafa dem defi NMA. mais boo xoolee état de forme ba mu defee NMA sax da xam ne bu fekkoon lii la naroon a bëre Tapha kon du combat état bi nga xam ne moom la ñu séntu woon ci moom. Uh-huh. waaye combat tey bi gis nañ ni léegi tey la gën a yokk ci kàttan ci la gën a ñuul ci la gën a indi forme boo xamante ne boo ko xoolee di nga xam ne kii mën na bëre ñëpp waaye nag li ci des nag. serein la. ak indi ay argument yu wóor ak rapidité ak fas yéene jeexal combat loolu daal ku ci gën a gaaw jàpp naa ni yaay gagné combat ku ci gën a gaaw Père Balla nee na jàpp na ni yaay gagné yaay gagné combat bi diggante ñu rafetlu ñu relaté ay carrière TV ba fu mu toll fu nekk di nga xool. gën ma doon jàmbaar si làmb ji yombul gën ma doon jàmbaar si làmb ji yombul. moom mënul xeex xeex xam naa ne bu ma duma ko bu bëree ma daan waaw yàlla nag moom moom ndam bu ñëwee xeex ma duma ko loolu moom amul sax xel ma dama ko def. bu xeexee nga corrigé ko. bu xeexee dama koy duma man maa bëgg Siteu ñëw xeex. waaw ji koy gaynde neex naa xool mooy gaynde ëppul ci ëpp ëppul doole ci àll bi dàqul daw ci àll bi gënul gënul gënul gënul dara ci àll bi mais dafa am loo xamante ni moo ëppalee nit ñi mooy du bàyyi du bàyyi gaynde du bàyyi mhm. gaynde daakaan lu taxaw ci kanamam rek du koy pousse yàlla waaw si mën kan man damay rëbb ba rëbaale kay sàmb gaynde yi mën a déggoo rëbb gaynde waaw maanaam loolu doonu la am sa fit say mbokk dama am sama fit dondu ko ci samay maam Sadio noo gisee làmb ji tey waaw làmb ji tey làmb ju nar a neex la uh-huh. ndax uh, stade bi fees na te ni ma gisee ñaari mbëri xam naa ni tey ji làmb ji làmb ji doy waar lay doon mm-hmm. surprise nag bu rëy mën na ci waaye nag nañu dawal ba ci kanam rek. surprise mooy lan ñaari mbëri kan moo ciy taan nga nga tuddee ko surprise. surprise la euh, mën na am parce que Papa Sow champion la nekkoon écurie Fass jógee écurie ber écurie ah. si tey nekk grand champion mën a bëre mën bis combat bi yàqu woon moo tax tey combat bi mën na am surprise bu mag a mag a mag. Hmm. ma ah. surprise bi de ragal man su ma doon joxe pronostic. Ah. ba ñu ma ko ma mel ah. waaye ni ma gisee làmb ji xam naa ni tey jii pour Siteu daanu dina jafe lool ci làmb ji. Ah. kon daal surprise bi mooy Siteu daan. le nouveau ministre. ma gisee Siteu ak ni mu dugg see. ah Siteu ak Papa Sow. ña ngay lagg ci biir géew ba ñoom ñaar. xàmmee nañ leen Siteu njool Papa gàtt. si tàngi noonu di doxantu. fii nii fii mooy jongwaan fii mooy sama cosaan te ba pare fii cosaan bi làmb la ñoom bëri rek lañ xam waaw léegi nag comme fii nag sama dëkk la pourquoi pas may ñëw di préparer. Uh-huh. yëkkati sama turu dëkk. damay bañ ngeen jaawale bouton yi ngeen war a bës. Paa ci biti pour le benn. heure grand combat bi la ñuy bàyyi soufflé. arbitre bi soufflé na grand bi. tey dimanche wane ginnaaw gi ci ginnaaw. dimanche 6 novembre 2022 yéen. sore na ñaari mbari diggante Papa Sow ak Siteu. non lii mënut a nekk. ah dina nekk per. arbitre sifflé na diggante Papa Sow mu jóge ci combat. digganteem ak Ama Baldé le 17 février 2018. jële ci defet. moom Siteu jóge ci defet. le 29 avril 2018. digganteem ak guy gi jële ci defet Papa moo ñu wan ginnaaw noonu. per Paale Diop. waaw Siteu lañ jàkkaar lool. waaw xam nga fi mu nekk nii round d'observation la def kenn ku nekk yaa ngi may distance sa morom di ko xool di xool lan la indi ak lan la war a def waaye xam naa ne duñ ci mujj dafa suyee Papa Sow dafa jiital tànku càmmoñ Siteu teg euh, tànku ndeyjoor léegi nag kenn ku ci nekk yaa ngi taxaw di xool sa morom waaye lii duñ ci mujj round d'observation la arbitre bi daan tekk xool leen. bu boobaa nag dana leen woowaat wax ak ñoom avertissement verbal. avertissement verbal bi <laughs> muy. parce que combat bi ñaari dix minutes mu ko fàtte waa kay mu ngoog. mi nga wax ñoom. fay ñu leen pour ngeen leewaatoo dañ leen a fay pour ngeen xeex bëre. Papa Sow jàmbaar wrestling académique. Siteu écurie Lansar. arbitre sifflé waat na Poulain Balla Diouf. Poulain Yaram Gueye. Poulain Cheikh Ndiaye manager jàkkaarloo ak Siteu bu Lansar. combat bu doy waar. daa mel léegi léegi Papa Sow fël jëm ci kawam. ñaari mbër yu bëri jàkkaarloo di xoolante. nee na ko bëgguma leen avertissement. xooluñu la seen nee na bëggu leen avertir. wala bëgguma leen avertir maa ngi ne jigéen seen loxoy laalante au moins. waaw na ñaari loxoy laalante ñu xam ne yéen am ngeen intention bëri. ñaari mbër yaa ngi lay waatoo sore ngeen. taxaw ba ni jon avertissement benn avertissement Siteu. benn avertissement Papa Sow Papa Sow bu ci nekk am nga benn mu mel nii bi làmb ji ba léegi kenn defu ci ñoom lu yoon di waay man daal yóbbu sama xaalis daan ma si te tekk na sengoor ba sax du ko nangu sëriñ boobu am na lay comme niñ koy waxee dee nag dañu xool ci âge na mën a diriger Papa Sow ndax distance d'âge bi nga am na ci seen diggante ndax Papa fu mu nekk nii booy xool bëre na lu mat vingt ans ci carrière am kon tey amatul dara. avertissement Siteu Papa Sow. ñaari avertissement ku ñoom ñaar am nga ñaar. en moins de cinq minutes ah. a bëre. dañoo sorente trop. mais Papa Sow léegi mu déclenché. Ah, waaw dina non non du ñu mujj fii. bu Siteu ñëwul Papa Sow dina ñëw de. dina ñëw dina bu ñu amaatee avertissement ñu dugg ci seen xaalis nag. non combat bi mënul gaaw combat bi mënul gaaw si te bu bëggee mu gaaw du gaaw passe bu bëggee mu gaaw mu gaaw ndax combat la boo xamante ni combat piège la ci côté yëpp ci côté xeex bi ci côté bëre bi combat piège bi. waaw dama la ne loolu moom la man li may def ragaluma ma de man li may man xam nga kañ laay gëm li ma amul xam nga kañ laay gëm ne lii aw ba ma ko ñaaxee ba wër ko ginnaaw mais lu taxaw sama kanam dama gëm ne dama lay am.

UNSP dëkk war nañ bàyyi xel ci li fi xewoon bi passé la ilaha illa dañoo war nañoo bégal ñu tey ñoom ñaar ki daan ak ki daanu yëpp du tee làmb nekk làmb ñoo ngi leewaatoo rek combat bi dafa dis ci ñoom ñaar ku ci nekk combat bi dafa dis ci yow mais dama la ne lu ñu seeg naw non dañoo war man dama man dama pare man li ma pare moom na ko pare bi lu mu mel ci moom la barka alxuraan bu duggee ñu jaay ko ñu jaay ko ñu amee lu ñu benn combat ñaari combat la ñu amee combat ak revanche. moo tax bëre bu neex moo waroon a feeñ fii na logique na. bëre bu neex waaye yaakaar naa ne. waaw yaakaar naa ne ba ñëwaatee prop. waaw na jël initiative. ba léegi mën nañ koo dabaatal. Ah. dab dabal mu tawee si ah, dëgg la. waaw man de jàpp naa ne newuñu wuu wax nga dara. man de jàpp naa ne ci deuxième round bi li xew ci la war a xewee. mënta ñàkk mais Khalifa Ndione maa ngi lay nuyu bu baax sama jarbaat c'est une pause de cinq minutes les amis. moo ma dàq na jël la parce que moo ko fi wane bañ gis ko xeex moo ko dàq moo ko fi wane bañ gis ko mais ñun ay ndaw lañ ñoo ngi jàng ñun ci ikiri lañ nekk am na ku ma dégg léegi mu ne Siteu mooy tête de file non non du ma tête de file de man doom laa foofu. diggante Siteu ak Papa ngi noonu di xëppoo ay ndox kooku nijaayam la. di koy nuyu bu baax a baax. arbitre baa ngi wax ak ñaari mbëri Malick Ngom Papa Sow ak Siteu boobu noonu. waaw nga war a jàmmaarloo Papa Sow fan la Siteu toll. mbëri mhm. mbëri boo xamante ni waxoon nga say biir wax ni sa tànk danga ko koy bàyyee mais nag moom waxul tànk mais sa catu wee sax mu ko jàpp. waaw day gën a neex rek. waaw day gën a neex rek parce que moom bu fekkee ne yàlla da ko may cong. wante moom feebaram yëpp tànk la waaw man tamit c'est la même man li may ma yor nekkul dama koy maye dégg nga moom. Siteu nee na moom xañu la tànkam tànkam. Hmm. bañul nga jàpp ko boo jàppee ah, jàpp tànk bu ñu jàppee tànk dañ koy damm tànk bu ñu ko jàppee waxuñu jàpp tànk bu ñu jàppoon baaraamu tànk sax dañuy ñibbi tànk dëmm. ah waaw baaraamu dee bi sax bu ñu ko jàppoon dañuy ñibbi. tetu baaraam bu ko jàppee nee du ma ko ci may dara parce que du wanteer day jaay waaw. loolu jàpp na ni goro bu teggee nga ndawal novembre dina la duma waaw incha allah nañ bàyyi boo yegg si lu ñu yeggagul mënuñ si wax lu bari du dëgg. waaw te comme ñoo ngi préparé nekk si dernier réglage bi man fi ma toll yaakaar naa pare naa damay xaar bis bi jot moom tamit c'est la même chose. ak Siteu ba léegi bëre nañu 11 minutes di leewaatoo wala boog leewaatoo nañu 11 minutes. mooy bëre leewaatoo bi Siteu daw na dóor dóor quatre appuis quatre appuis am na wala amul am na wala amul. laa ilaaha illallaah lu xew Siteu daan na ko jël bu rëy. laa ilaaha Siteu daan na ko jël bu rëy waaw nañ xaar arbitre. te li mu xaar arbitre xaar arbitre ay daan na ko kenn musul gis lu mel nii nan xaar arbitre jox na ko tuwaar waa génn si te Papa Sow Papa Sow moo génn si Papa Sow ba ba ci biir la nekk naan na Papa Sow dafa génn mu fel ko samp ko jalla jalaaluhu na ko jël bu rëy deux minutes après la prolongation après Père Tapha Gueye si te la heure bu ñëwee day yokk ci làmb non si bett na ñëpp wax naa la ah, non non non non ci bëre li li moo def dafa jàllawle li moo jàllawle. mooy gën mu jóge woon. ci bëre si te bett na ñëpp. bett na réew mi de. ci bëre si te bett na ñëpp. combat bu doy waar la. ah gars gën na wareeti boppam nag. ah bañ ko ci lamb mootu la nekk ndax ko xam ne bu ñëwee da ngay naan soixante mille doole barke Serigne Touba Mbacké déggoo ma de non à ah, la violence xanaa ñun ay français lañ Papa Sow barke Serigne Touba Mbacké ah dina xam ne ñun dañoo mën bés ñun ñun waa jaamu nga ñun ñun ci lañ am ci la di ñaan yàlla esa yi naaj yal min bi esa yi januwaar lay xoolal lay jugee ngàlloo sër bi di jug di ñëw barke Serigne Touba jaamu ngeen jaamu ngeen amul président amul ministre déggoo ma de Sita Kassé Sita Sita bu wote woon président Macky barki Serigne Bamba Siteu Siteu barki Serigne Touba Mbacke doomu dëkk bi la amuñu keneen ku dul moom barki Serigne te loolu mu def noonu da ngaa xeeb lu bëri doole barki Serigne Touba Siteu su amoon ay milliards tey barki Serigne Touba ñun ñëpp xool duñ jaaxle damay rëbbi nii ngay rëbbi ci waaw damay rëbbi ci àll bi rek rëbbi ci àll waaw ngay rëbbi karaw gaynde lañ ma yónni ba nu jëm jëli ji ko te dama koy jëli ci digg àll bi waaw ku dem ci alif waaw ndax si ay matuwaayam. yàgg na samay maam jox nañ ma samay cosaan jox nañ ma fetel samay bët a nii kon lu ma sama bët xañul sama fit duma ko xañ. Hmm. dama koy jëli ji. dama am sama fit dond ko si samay maam di ko doxal. àndoo àndoo dégg ñu naan liggéey ngir sa dëkkuwaay am doole ngir say noon bu xaayee rek ñor na loolu dong man lii moo gën a tuuti sama mën bëre lii moo gën a tuuti sama mën bëre mbooloo bi xëy ñu topp ma de man baba dama ko toj sama war na xam li may wax bu baax man bi may ñëw sibileem di koy toj loolu 2010 boobu xale bu ndaw laa jour ma xa fàtte mukk waaw il faut nga xaar Papa Sow ah. parce que Papa Sow moo la ëpp lépp bëre soo xoolee ni mu bëree consigne la bëree ayo mu gaaw waaw si loolu la nee na mooy moo ma dàq bëre moo ma xaar ma xaar ko moom ñu séddoo ko. waaw beneen bi may wax mooy maa ngi sant sama fans yëpp di sant sama jabar waa Amérique samay goro maa ngi leen di sant ñoom mama Issa père lii mu a bëri la rek waaw. parce que boobu daf maa yëndu ma sambal ko benn oom bi ndax buy ñëwaat ma gis ko. yàlla na dindi ab feeñ yàlla na dindi ab feeñ yàlla na dindi ab feeñ